asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateur Equivox TV yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen tey nag gis ngeen fi ma toog yaakaar naa ne fii bëri na lu ma fiy toog souvent ci làmb li ko waral mooy ki ma fiy toogal maanaam nitu làmb la wala ñun boog si làmb lañ ko xamee mu ciy def lu am solo Mamadou Diakhaté alias Jax defe naa lutte avec frappe sénégalais yi xam nañ ko ci waaye defe naa lutte simple tamit dama naan wax dëgg yàlla. loo bañ bañ njomboor na mën naa daw nekk na ci numéro un par rapport ak mise yi mu ciy teg ak bés yi mu ciy organisé tey nag làmb nekkati ci ay problème la ma waxoon ne guddi gu bët setagul ci la làmb nekk actuellement moom mu bokk ci acteur yi ma ñëw na fas yéenee dëgtal leen moom xalaatam bi mu am ci jamono ji li ñuy dund te am na lu mu fi waxoon ay ay weer ci ginnaaw te daa mel ni wax jooju mu waxoon daal daa mel ni ba tey wax ji dafa dañagul Dia Jax maa ngi lay ziar. waaw ñu ngi lay delloo ziar di nuyu ñiy déglu yëpp di seetaan di nuyu waa Equivox toute l'équipe euh, di di bëggee ñëpp ñu bëgg a làmb Jax fi may jëm ak yow tout droit rek mooy làmb ji fan yi gis nañ coow li jóg na li indi coow li bokk na ci ay promoteurs yoo xam ne dañu organiser woon ay journée muy waa Rent DKR ak ku mel ni Dieye Sène mu ñu waroon tëgg dimanche passé. ñu dem ba au dernier moment ñu ne sécurité amul parce que sécurité nag su amulee làmb du mën a am ñooñu seeni journée niil noonu mbëree tamit ak la ñu préparé woon niil loolu keneen bi ñu ko déggee en tant que promoteur lan la la def. naqar naqar muy lu metti parce que man damay tëgg làmb xam naa li na ci làmb xam naa dépense yi ci nekk xam naa coono bi promoteur yi di daj boo tegee làmb bañ ne tey la ëllëg la affaire làmb ji ñu taxaw naan laan gouverneur nee na xonq na ak ñuul na loolu dëgg la c'est de l'irresponsabilité man Diaks maa ko wax. état bi ko état gouverneur mooy état nit du jël xaalisam investir ko ba heure boobu accompagner ko nga naan arrêté naa parce que aw ma sécurité loolu waxu tappale la lan mooy aw ma sécurité Dakar mën na ñàkk sécurité est-ce que avec pandémie bi jàk si tamit coronavirus bii est-ce que tamit gouverneur lu toll ni gouverneur ak li muy xam li muy am ci information est-ce que loola sukkandiku ca ba tax mu bañu a dugg ci lu mel noonu parce que tamit coronavirus bi ku gis na actuellement ne mu tas ci dëkk bi ah corona benn affaire la benn affaire la hmm. lii ñuy wax beneen affaire la ça n'a rien à voir ci corona la pour def li leen neex dañu waxante dëgg rek dëgg bu jotee da ngay wax dëgg bi ni mu mel ni mu mel c'est de l'irresponsabilité man Jax maa ko wax ku mu neex na ma woo c'est pas responsable ni du jël alalam investir ko ba foof ngeen taxaw di wax naan corona bi xonq na ak ñuul na demba démb rek maa ngi woon côté côté parcelle unité 3 marché yaa ngi fa ñu tege ay luuma la xaw ma lan mu fees dell ay milliers de personnes kenn day xooxu sécurité dañ tere ni ñi ñu jaay seen ay table kenn dafa takk masque waxal oto yaa ngi fees dell ak feneen ak feneen ak feneen lu yëngu ñu teg ko làmb làmb daf leen def lu bu ñu bëggul làmb nañu bëgguñu làmb. yow da nga gis ñoo bëggul làmb yow. ma bañ làmb la mënu ma wax ne mënu ma wax leneen hmm. bu fekkee dañu war a jël ay mesures yoo xam ne ci corona moo tax ñu jël mesures yi na ko président la république jël. mais jag sa corona bi man ci li may am comme ay information wala li may dégg mu ngi yóbbu ay nit de mu ngi yóbbu ay bakkan de. ma chaque jour ni ñaa ngi dee laa la wax corona bàyyiwul fenn mu ngi rey nit ñi fii di rey nit ñi feneen ci yeneen dëkk ci àdduna bi dama ne déggoo baax li ma su dee dafa am ay mesures yu ñu war a jël du ay mesures gouverneur naan ay awma sécurité loolu ay ay ay naxaate la sécurité musu fi ñàkk te du fi ñàkk muk bu ñuy jël ay mesures nañ ko jël en haut lieu président na assumer responsabilité loolu laay wax man waxuma waxu gouverneur ay amul policier lan mooy amul policier jëy seen làmb ji muy tëgg euh, Iba Mar Diop vingt policiers la soxla Sénégal mun Dakar mun na manqué vingt policier arène national cent policiers la ñuy wax deux cent vingt mille la ñuy jox euh, commandant Thioune cent vingt policiers mën na manqué ci sécurité Sénégal Dakar du dëgg laa wax maa ne du dëgg dañ def li leen neex du dëgg président de la république laa wax na jël ay mesures kon yow pour pour yow président moom moo war a génn wax ak askan ma ne moo war a wax ak askan bi mesures yi mu ñime ko jël ko laa wax Sénégal fi mu nekk ni toll nañ niveau buñ musul toll mm-hmm. lañ ñuy jox ci information romb nañ ko laa wax Covid bi egg na niveau boo xam ne c'est dafa ëpp dayoo hôpitaux yëpp fees na del ba amatuñ fu ñu leen dugal matériel yi li ñu jëndoon jox ko euh, centre yi ñu ci ñu ciy faj nit ñi ba Covid bi wàññeekoo dañ ko jaay. jaay matériel jaay laa wax mu ngi si clinique yi. tey ku bëgg faju ñu laaj la 2 millions de caution lool dëgg la. li nga wax doy na waar di. ma ne vérifier leen ko ne ay journaliste ngeen xam li ma wax lu tax amuñu ay lii yu doy lu tax amuñu fu ñu faje nit ñi te matériel amoon fi fu matériel bi dafa naaw diggante un an. te clinique yoon matériel bi dañ ko jëndoon dañ waxante dëgg ani mille milliards ñu waxoon dañ ko génne ci Covid lan la ñu jariñ ñun Covid kenn mënu ko faj kenn mënu ko faj ci àdduna bi yëpp laa wax ne ko nit ñëpp xamee noonu du ay caaxaan daf fi ne te day reye loo bu jëkk bi màgget yi la doon rey bii nag bàyyiwu fi ndaw ñi te am na beneen buy ñëwaat. déggoo li ma la wax ñun dañuy uti ay information fu ne am na beneen bu ñuy wax lambda bii delta la côté ay Inde ak yooyu la jóge bii lambda Amérique gii la joge du bàyyi dara mu ngi bees di génn donc autorités yi nañ jël mesures yi ñu war a jël laa wax bu dee dañu war a tëj dëkk bi nañ ko ñeme tëj ko amul solution solution bi mooy vacciner nit ñi pour ni ñi bañ a dee buñ la vacciner du tere mu dal la mën na la dal dalaat la dalaat la boo boo boo boo aarul sa bopp mais du la rayati comme dégg la ñuy bañ pour le moment mais 1000 milliards yooyu bu ñu ko jëloon ay vaccin vacciné senegal yëpp kon sauvé wuñu dégg naa tey ay vaccin day ñëw kay. ñaan lañ fi nekkee laa wax ñaanantu Amérique may na ma temps Chine may na ma temps keneen may na ma loolu mooy lan xanaa du ñu état 1000 milliards boo ko jëndee vaccin ñaata million de vaccin la xaalis boobu bu dañ ko jëndi woon vaccin laa wax kese hmm. ak ay matériel pour faj nit ñi. kon Sénégal waxatuñu waxu corona. ay dund lañ ci dimleew nit ñi ay ceeb dégg na affaire yooyu affaire yi. nit ñi bëgg a faju nga jox ni ñu ay saaku ceeb nawet baa ngi ni kenn dafa xam fu ñu jëm. doy na waar itam wax lii wax la ca des. juillet kenn gisul peppu ndox. looloo gën a garaawati corona. dugub jaa ngay ca bawal ak feneen ak dee na laax bul ne mu ngay dee dafa dee. ña jotoon gerte perte nañu. mois d'août la ñu ngi dugg ut août ñëpp xam nañ ay li tubaab di wax pluie diluvienne la ay taw yu bari taw boobu plan bu si jog maanaam plan bu si jóg du am racine yu muy ancré woo ci sol bi ndox mi day ñëw yóbbu ko ñu ngi jëm ci famine famine lañ jëm li tubaab di wax famine xiif gu metti mooy ñëw ci Sénégal lu wóor laa wax nag te ñoom xam nañ ko hmm. la ñu am ci information man awma ko. li nga am ci bari na de jàpp. ma ne président la république laa wax na jël ay mesures laa wax buy tëj na tëj na ñime li muy def mais ay pas ay gouverneur yow fii naan amuñu sécurité loolu ay tappale la laa wax. Euh, ay tappale loolu nga ko gisee tey làmb ji moom ñëw na tamit bokk na ci coow li parce que gis nañ que ni biñ teree ñee ñu tëgg am na ay combat yu war am weekend prochain parce que man waxoon naa ko démb noonu na bu fekkente ni jéy tëggul rent DKR tëggul weekend prochain ñu jëm ci ay grand événement wu làmb ndax ku ne xam na ne bala Gaye bu mu war ji événement la ki nga xam ne moom mooy Siteu Papa Sow événement la muy samedi ak dimanche loolu tamit noo ko gisee ma ne Balla Gaye mbër kese la Bombardier mbër kese la Siteu mbër kese la Papa Sow mbër kese la ñi jéey tëgg tamit ay mbër kese lañ amul kenn ku si ëpp grade ñoom ñëpp licence su 10 lañ fay mbër mbër la rek journée journée la que mu nekk journée 200 millions ak journée 10 millions c'est pareil pour man hmm. waaw ñu ngi xaar ba xam lan la ñuy def. lu ñuy def mooy. ma ne du ñoo ne samedi dimanche amul sécurité ba ba dimanche bi xam ba ñu génn sécurité dinañ wax fu ko teg. sécurité bu dimanche passé dinañ wax fan la nekkoon ba dimanche bi ñu mën ko génne du Gaston mooy tëgg. Gaston samedi lay tëgg. ma ne Gaston APR la ne laa wax ñu newuñu APR politique gu ñu. Gaston moo la ne APR la. ah APR chaque jour mu ngi jàppale Macky Sall di wax. xarit na nit ma ne est-ce que du xaritam rek Macky Sall. fan la xaritoo ak Macky wax ma Gaston fan la xaritoo ak Macky yow da nga jàpp ne Gaston bu tëggee samedi Pape Abdou yéen nu ngeen di def ñëppay tëgg buñ ko autorisé Gaston ñeneen ñi tëgg wala làmb ji tas lu wóor laa la wax promoteur yi dañ ñàkk fayda mbëri dañ ñàkk fayda ñu yeewu dimanche bañ ko ñi ñëw dimas bi jox ko ñi pour lan fuñ ko teg fan lañ ko teg ah, Balla Bombardier ñi di ko xaar euh, Siteu Papa Sow yow da nga jàpp ni doo am kon maa ne lijjantiwu Bamba Bombardier ak Siteu Papa Sow laa la wax situation biñ nekk laay wax man li may wax si moo siit moo sut loolu njariñ loo fekkee on est dans un dans un ci situation bu garaaw bu garaaw a garaaw a garaaw ministre des sports Matar Ba lu mu ci def wax ma. maanaam moom déggante leen yéen en tant que ay promoteur. man déggante man du ma dégganteeg moom am na ay xaritam ñu muy waxal man du ma dégganteeg moom xanaa ñu am fa réunion ma fekke ko ñu am lu ñuy wax ñu wax li ñuy wax mu jeex ma ne lu mu ci def laa wax ci mbas mi fii lu mu ci def wax ma. dégguma ñu joxoon nañ ci promoteur yi xaalis. waaye bàyyi ma waxu xaalis waaye loolu day xaalis. ay 2 millions par 10 xaw ma 15 promoteurs loolu mooy loolu mooy xaalis par rapport ak 1000 milliards yu ñu yoroon loolu mooy xaalis li may wax moo gën a garaaw laa la wax vaccin moo mun a nit ñi Matar Ba en tant que monsieur le ministre Matar Ba en tant que ministre des sports lan la def pour aar sportif yi man loolu laay wax li may wax dafa garaaw de 15 mille 151 mille vaccin ñëw na jóge Amérique Amérique moo ñu ko may mooy Johnson Johnson bi ma la doon wax man dem naa pikiru waaw waaw Amérique laa bëggoon dem piqûre yi ñu andil ma ko ba fii du ma sant. waaw waxoon nga ma fi ne yow day da ngay dem piqûre yi. heure du matin laa jóg dem Gaspard Camara fekk lu mat personnes ñu pour piqûre dama ñibbisi ñu ne ma chino moo fi am ma man vacciné wu ma chino. Ah, yow Johnson Johnson bi ngay laal. Johnson laay laal benn yoon nga koy laal mu jeex. léegi bi 151 000 vaccins yi ñëwee lu si Matar Ba def warul toog rek ne man ministre des sports laa yoruma santé parce que moom. moom mooy gérer ndawu Sénégal dafa waroon woo ba euh, Diouf Sarr ak ministre des force armées ak président la république ñu jox ko quota am. sportif yi dégg merci. cent cinquante et un mille bu ñu joxee sportif sportif yi dix mille wala quinze mille ñu yóbbu ko Iba Mar Diop ku nekk Iba Mar Diop du ay militaire militaire yi amu amuñu amuñu amuñu euh, ay docteur ah, amuñu ay infirmier ñu ne sportif bu ñëw ak sa licence ñu vacciné la loolu moo doon rôlu Matar Ba ci lii ñëw nii laa wax de lu mu ci def defu ci dara maa président na génne alalu réew mi laa wax jëndi vaccin yi on est plus de 17 millions de sénégalais sans yi mat nañ 5 ou 7 millions. gi ñëw nag jax yow ne nga ah, li ñuy jox ay may la laa wax waxuma maye ñaan. jënduñu ko nañu waay fu ñu jënd dañu mës a jënd dara nañu bàyyee ñaanaatu bi. réew yaay respecté sa bopp ku mën a dégager 1000 milliards ne fonds Covid war nga mën a jënd vaccin buñ la ciy may tamit ñu may la ci mais nga jënd ñun ay ñàkku waat arrangé wu ñu ñu jëkkoon ñàkku Astra bi am na si ñuy dem pour deuxième dose amuñu deuxième dose parce que Astra ba jeex na ñuy xaaraat Astra balaa Astra di ñëwaat la nga jëkkoon amatul njariñ ñun pays sous-développé la ñu bari ñu amuñu xam-xam possibilité da ngay seet li nga xam ne moo ñu arrangé Johnson bi benn yoon la. nañ uti Johnson ak américains yi négocier ak ñoom américains ñoo ñëpp doole nañ ñu may ok bu fekkee da nga soxla vingt millions de vaccins ñu may cinq millions yi sax baax na nga xam ne jënd nga quinze millions lépp ñëw nekk benn yoon ñu tas ko ci Sénégal yëpp ñëpp mën a vacciner wu loolu mooy dëgg pour sauver le peuple mais du ay waxantu ay jàpp na fii ay cent cinquante mille ñëw na tey ëllëg trois cent mille la ngi ñëw non situation bu graaw la mesure yu graaw moo koy réglé na président jóg def ko. léegi ba tey dinaa ñëwaat li nga wax am na solo mais si côté làmb parce que dégg nañ ñuy wax waxu mille places pour arène nationale jàppal bàyyi la loolu loolu tamit noo ko gisee. loolu Gaston mi organisé yëg ne am na problème bu bu ñëw affaire bi takar naase na garaaw na mu seet si xalaatam ak ñi muy liggéeyal solution boo xam ne mën na ko andi loolu solution bu Gaston joxe la. dafa am 22000 place mu ne man en tant que promoteur damay def 5000 places laay jaay li si des ku bëgg na seetaani télé euh, jënd paas paasam pour seetaan mais loolu c'est une super solution ndax ci 22000 places ba fa tasee 5000 nit ku nekki ki rek sa toog ni ki toog 5 mètres kenn du jóge sa morom lu leen tere organisé mais problème bi du nit ñi kese Babacar problème bi du amateur yi supporters yi kese fii gën a garaaw walante bi gën a garaaw mooy mbëri il faut ñu taqaloo bëri. maanaam déggoo li wala mbëri da ngay même boo pikiroo da mën nga am mën nga am Covid. Balla Gaye bo amee Covid da koy wàll bombardier kenn mënu ci dara parce que dañuy jàppante jaxasonte euh, ñaq yi laalante kenn mënu ci dara keneen noonu keneen noonu keneen noonu man maa ngi bëgg a tëgg lutte simple le premier Iba Mar Diop. 128 mbar bu ñu ñëwee imaginel ñu ñàkkoog ñu bañ a ñàkku laa wax même bu dee ñàkku nañ dañuy wàllante. yow di nga tëgg le premier. bu soobee yàlla lu may tere tëgg bu Gaston tëggee ma tëgg bu Pape Abdou Fall tëggee ma tëgg laa wax. Hmm. licence lañ fay ma fay licence. ñuy def frappe may def simple yi def frappe. buñ tëggee force nga tëggee. bañ a ku may tere tëgg. CNG mi organisé jox na ma sama date comme ni leen joxee date yóbbu mise la bu heure bi jotee bu ma dee fayee sama sécurité yóbbu sama mise jox leen. kon daal yow mën a déggee li ngay bañ mooy wate taxas wet maanaam tëgg bàyyi bàyyi ñi ñu tëgg tere ñi loolu ngay bañ loolu kenn du ko def fenn amul jaaduwul du dëgg comme tere nañ ñii fi jëkk dañu war a tere lépp loolu mooy loolu mooy tëdde njaaxaanaay loolu mooy dëgg te du te du te du préfet moo war a jël ay yooyu mesure ak ay du ñoo ñoo war a jël mesure ay taxoon aw ma sécurité loolu laa nanguwul bu ñuy arrêté pour des raisons de sécurité état mooy jóg ne attention tollu nañ foo xam ne kenn waratu fi def luy jaxasoo nañ ko defee woon nañ ko ñeme mais ba doo ko sànni ci ay gouverneur ki préfet ñu naan ay awma policier lool du waxu dara policier yaa ngi fi jógewuñu fi dara xew fi lu mën a occuper policier yi ba amuñu cent vingt policiers yu yu gérer arène nationale ñun lutte lañ soxla pas plus euh, président Bira Sène mi jiite lamb ji jokkoo ngeen bi situation bi amee non man amul may wax ak Bira xam na li muy def def na ci sorti ci jour sunu lamb expliqué na. woowul promoteur yi yëgal leen situation. ah yëguma fu mu leen wooyee na ñenn man tu sais moi je suis dans mon coin je fais mon boulot maa ngi sama xutaab mhm. mais yëguma mhm. du loolu Bira Sène loolu lu sut Bira Sène la. Ah, supérieur mais attends Bira Sène dañ ko gérer da fexeel ba nit ñi bëri seen bëri nga def say texte nit ñi wu jeex na mais lii moo sut Bira Sène c'est la sécurité man jéem naa fi tëgg fii gaal gi fii ñu ne ma doo fi tëgg préfet ne ma doo fi tëgg parce que da a andi autorisation du préfet pour tëgg mooy première journée boobu tojoon di xeex foofu rek dafi kenn xamul yanu siège yi yóbbu deux millions quatre cent mille francs ma perte ko bi si toppat ñu ne ma do il faut préfet autoriser la su ma rakk dem seeti préfet bi waxtaan ak moom mu ne da ngeen waroon def demande ma ne ko diggante bi ak bi xaju fi demande xaju fi mu bàyyi ñu ñu tëgg ma ne ko su ma naa def demande et puis c'est c'est c'est raisonnable parce que problème amoon na mmh. problème bi amoon mmh. moo tax ñu jël yooyu mesure loolu mooy nguur bu dara amee da nga sukkandiku pour defar sukkandiku pour def li nga war a def situation dëkk bi toll na foo xam ne mmh. du ay affaire u préfet ki gouverneur président de la république moo war a jël ay mesure am mais nag il est mal placé parce que moo fi nekkoon di wër Sénégal di wër naan day day inaugurer ay yëf fu ne mu dajale fa nit ñi tamit est-ce que est-ce que boobu mbir yi mel na ni. waaye def tournée rek ma ne président la gën a xam li président li mu am si information amul ci Sénégal mun naa sa Afrique de l'Ouest Sénégal bii li fi am ci réseau d'information amul fenn ci Afrique de l'Ouest président la gën a xam fuuf li fi xew ak li fi xewul. kon da nga yaakaar ne tournée boobu xëy na moo tax nangu la wax. moo tax di dajale nit moo tax ñemewul wax. ah dégg naa ñu ne de ah, ah maa ngi gis ñu ne dina wax ngoon. ku ne génn nit ñi takkuñu masque te gis na ko. anu def li muy def ba pare léegi nag yëf yi na këtt na jonn ci kawam ñi mewul wax dañ bàyyi sax waxu président quoi ñu kilifa la wax fa dëgg yàlla. président Macky def na ay erreur nag na ko rattrapé. mais tam parce que loolu génn boobu moom du moom kese ah olof nag ne du man kese bokkuma ci ak gën waaye gis nañ tamit yeneen politiciens yi génnoon nañu. moo ñëpp kenn jëkku ko génn moo génn nit ñi topp ko bugaan topp si ginnaaw naan day fopp tànk xaw ma raxas tànk xam nañ koy wax. tànk tibb tànk keneen ne xonq fee keneen ne ñuul na fële parce que moom bu génnul woon kenn du génn kenn du ñeme génn mais c'est grave ñun dañuy fi mu nekk ñu ngi ci ay risque laa wax. mais Jax dama lay laaj yow parce que yow mën nañ ne Jax sénégalais nga waaye sénégalo américain nga lan mooy. man man sénégalais la bu ma waxee loolu man ça veut dire que Amérique danga fu commune di fa dund. waaw dëgg la moo tax moo tax ma bëgg la laaj maanaam lan mooy problème mu Afrique rawatina Sénégal par rapport ak suñu digganteeg. Euh, buñ dee wax occidentaux yi wala américains yi wala nangam lan ñooñu lu ñuy def ba tax ñu raw ñu lu ñuy def ba tax ñun euh, daal chaque jour ci coow ki difficulté la ñuy nekk rek. gëm seen bopp ñun gëmuñu suñu bopp hmm. ku gën boppam sax ñu créé ko ay problème gëmuñu suñu bopp nekkuñu fi lu dul tappale ak ñaanaatu ak ne neexalaate ak yooyu ça n'avance personne rien Sénégal mooy dëkk boo xam ne ci Afrique. du ay caaxaan de du parce que li ma nekk sénégalais moo tax lool laal lool laal ci xam-xamu àdduna am na booy bu ko jàng naan téere yi jeexal daay dox ñun mënuñoo dem. man de loolu jaaxal na. mënuñoo dem wax ma ko parce que ñi ñu war a jël pour ñu yor li ñu war a yor doxal ko mu jaar yoon ñooñu lañ jëlul ñoom ñiy lijjanti affaire politique rek naxaate rek politique mooy naxaate. moon daal maanaam place ya dañ dañ caa tegul ña ko yeyoo ma ne boo ñafee ba yàlla jël ñu fal la jox la réew da ngay seet ñi valable nga teg leen fi nga war a teg ñu liggéey ñay politique nga bàyyi leen ci politique ba si sa ay nit mais mun loo jël ay politiciens teg leen ci poste yoo xam ne c'est des postes techniques yu war a doxal réew te fexe nag aussi yërëm sa askan fexe ñu avancer mais pas lii ñuy def nii Macky Sall mu def fii dix ans ani changement bi ci nit ñi ani changement bi wax ma ani changement bi dëkk baa ngi gën a tar gën a métti te muy président boo xam ne am na fu ko yàlla jaarale mu am expérience am fu mu jaar am lu mu gis ci àddunaam waroon ñëw jël ay mesures yoo xam ne changement bi day radical dëkk boo xam ne li ëpp ci nit ñi dañuy góorgóorlu muy metti ñu ne ci rek gisuñu solution ñun fu bu nawet bi passé mu garaaw de. ah de yàlla réussir ak jàmm. sax am nañ chance de nañ fàtte nañ génn nañ ci coono bi mais ñii dund ñoo gën sonn parce que ku dee bokkutoo ku mu yobbu yóbbu na dem nga amatoo compte. ñun de yàlla na nawet bi baax ndax ñun maanaam kaw kaw laa. ah man de nawet bi baaxul xam man gisuma baaxam de xanaa yàlla yàlla moom lu ne mën na ko tourner. yàlla na nu yàlla sauvé. mais li ma gis nii. te kan moo ci wax ci autorité dégguma kenn ku si. ban du président ministre de l' agriculture ñoo ñëpp kan nga dégg mu wax waxu nawet bi taw bu retard beeg tiit ci sax wax ci. animu waxal. covid covid covid covid bi luñ ci def. dara. ma ne nañ jëndi vaccin yi laa wax. pas ay compi compi ay cent cinquante mille ak ay trois cent. ñëw pour yow daal mënta régler. Sénégal dix sept dix huit millions de personnes. nga naan andi nañ mille kii ak deux cent mille ak trois cent mille. loolu moo koy régler. nañu jëndi affaire bi laax mu ngi ci àdduna bi affaire bi morning la xaalis la da nga koy gëndi jëndi liñ lay may ñu may la ko booleeg li nga jënd nga andi teg ko fu ne ñëpp faju te nag gis nga tabaski bi mm. ñëpp dem nañu mm-hmm. ñi nekkoon ci àll bi dëkk ci dëkk yi nekk seen jàmm yaram di mm-hmm. dund seen dund ak mm-hmm. seen i jafe-jafe waa andil nañ leen fa feebar bi nag dolli leen. parce que foofu moom xaw ma Covid dafa ne xaw ma waaye xam naa daal la moom métti boo xam ne bëri na ñu ci àll bi de. variante bi dafa changé forme dog nga docteur yi di ko wax dafa gripp la def ani grippe bu nawet foo ko mos a dégg man di grippe loolu laa ko xamoon <laughs> très bien jamono ñuy góob waaw di déqi gerte dégg waaw ci laa daan gis grippe bu nawet biiru taw bi di commencé nga ne si biiru mooy am nawet daal moo waaw nawet lay am mais koo dégg grippe na rek dafa corona daal si biiru laa xamoon ci toll nii koo dégg grippe na rek corona la jàppal loolu docteur yi wax nañ ko. fi mu ne boo bëggee dégg-dégg moom ñëpp ko am moom. nañu pikir nit ñi laa wax. man la métti na te du ay pikirunte. dañu fexe pikir tas fépp tamit. pikir yi tas du Sénégal du Dakar kese. loolu moom man maa ngi ciy waxaat parce que man Jax man mii Bawol laa dëkk am na ku dëkk Njambur am na ku dëkk Sine am na ku dëkk Casamance ñu fexe village yooyu nga xam ne ay sénégalais fa ne. di voté comme ñëpp di ay citoyen ñu fexe vaccin yegg fa loolu nag li koy maye mooy fexe affaire bi au moins bu mënta doy tamit ñu fexe def le maximum ba mbir yi mën a tas. dama koy wax de vaccination la ñu war a ubbi hmm. ay oto yoo xam ne hmm. c'est équipé mu dugg ci àll bi dugg ci village yi vacciner nit ñi jox leen seen carte avancée ci beneen village. Hmm. loolu mooy wax situation bu grave bu mel nii noonu nga ko mën a régler mais du ay texte ay quelques dizaines de milliers na naan ñëw leen vote vacciné nit ñi dajalowaat fa waa wàllante nee naa la bi ma demee Gaspard fekk fa nit ñooñu dama rocceekuwaat génn ñibbi parce que man taluma yooyu. bàyyi ba mu féex nga doog man damay dund dund bu réfléchi bu calme taluma fu ñuy dajaloo. kenn du la ko yàq. non non non xam nga li ma wax donc caravane mobile ngay ut ay caravan sax du benn mm. bii nekk yii nekk Casamance yi nekk Fouta yi nekk feneen yi nekk feneen ñuy wër village yi parce que ñooñu amuñu temps ñëw. nga wër leen ñi ñu war a vacciner fu ci nekk ñu vacciner leen jox leen seen carte ñu denc mm. nga xam ne ci diiru weer rek mm-hmm. war nañ ko régler ñëpp loolu mooy solution bi de du ay copp compal yi di xaar may nañ ma trois cent mille may nañ ma non président dimbali ñu ngir yàlla jëndil vaccin yi ñu vacciné ñëpp nit ñi bañ a deewati ci loolu du tee nag nit ñi dee ci leneen ah, au moins ñu xam ne corona bu la nga dem faju ji wéraat continuer sa liggéey loolu mooy sa rôle en tant que président mooy sauver ñun d'abord sauver ñu ba pare après ñu lijjanti lu ñu lekk comme comme li ñu lekk famine baa ngi ñëw ah. problème yi bari na de yàlla na ko yàlla saafara jag sa kontaan naa ci yow looy tàggu ah di béggee ci yéen rek di leen sant voilà bu kenn gis ne nag man dama contre wala loolu man ci ñi jëkk a jàppale président laa bokk waaw ba muy jëkk campagne mhm. tribune bi mu taxaw taxaw naa si ginnaaw waxuma ci ful bi de ci tribune bi ci kaw mais après dama retiré taxaw di leen seetaat voilà gisuma lu ma xam parce que fi muy jaarale moom mooy président rek moom lañ fal mooy seetli ko neex mu def ak ay nitam man bu ma gisee ne li ma xalaat doxul <laughs> ma toog seetaan rek tôt ou tard wàllam dina jeex keneen ñëw bu keneen ki ñëwee andi leneen mais nag rôle am moom moo doon Sénégal jóge ci ndóol ci nguuram man loolu laa gisoon ci moom yàlla ko yàlla def ci li ci des ah mu mottali loolu senegal jóge ci yenn jafe-jafe ndóol bi tamit ah comme kenn mënu fi jëlee Covid bi nañ ñu dimbale rek andi vaccin yi te bàyyi ñaan bi. waaw ministre des sports tamit li ma ko waxoon du ko dindi Matar Ba monsieur le ministre xaritu sport ah. xaritu làmb xaritu lépp ah. dimbale ñu gisal gars yi ñu jox la sa quota bul toog rek di seetaan nañ la jox sa quota dix mille quinze mille vingt mille vaccin nga yóbbu ko Ibamar woo armée bi ñëw déjà Ibamar armée fa ne voilà sportif yi ku andi sa licence ñu vacciné la rapidement au moins côté boobu ñu sauvé ko macha allah yal na yàlla defal jàmm. kooku mooy jag si dégg ngeen li mu wax a ah, li mu wax nag defe naa ne ah, wax ju leer nañ la wax la joo xam ne nii daal ku ci nekk am na loo ci war a mën a tibbi muy ki jiite ak ki ñu jiite kon nag li am solo daal mooy yal nañu yàlla sàmm te aar ñu dimbali ñu. ba li nga xam ne nii moom mooy corona bi yàlla na ko fi yàlla jële waaye nag li ko fiy jëlee comme li wax la rek maanaam faju faju ga nag ka kay initié wala kay commencé moom mooy état bi ñu ngi ci nag yàlla nañ ci gën yàlla nañu gën a am renfort buy tax ñu mën ko def ba ñëpp mën a faju wér ak jàmm waaye comme li wax tamit a ah, may ma may ma moom su bëree bu yàggee du jur jàmm kon yàlla yàlla nañu yàlla dimbali ba réew mi am yu fi boppam ba mën a gérer boppam ba lu ñëw du ko jaaxal ba beneen yoon Thank